ñu dem ci réseaux sociaux di yàq deru Cheikh Dieng waaye man ko pire la ba ci maam ak ñaar na góor pire la ñii di ko ne nay ñii di ko ne bàyyi góor pire la ab ñu fay ko neexal ko mu jóg ni seex jeg dañ ko jox oto ngir ger ko ka ko jox oto bi da doon wut marché ci ONAS yée yaay delloo na oto bi sax jaay leen ko bañ jaay ko ko quatre millions déggal wax ñu ñaaw ñàkk fay na tàmm mu di wax ci man de ndax tey ko waxee nag ab taalibe la juróom benn oto ngi gaare ci li juróom benn oto di gaare ci li ñetti oto yoo xam ne maa ko moom ñii kat kat yoo xam ni mën naa koo liggéeyee sama alalu bopp la jël ku juróom benn oto di gaare bu duggal bisu la wax ko léegi 1997 fekk may dawal Toyota Prado kooku soxaluwul xiif boobu nag wax dëgg yàlla xañ na nag ak taalibe tax na isaay ma soo Lagos isaay ma soo li carax ñu ni seex jeg da koo amut ah kay am naa ko nag de dëgg yàlla am naa ndax samay doom ku ci am baccalauréat ma jënd lool moom laa lay jox cadeau baccalauréat ah kay bu bu bu jotee nag nañu wax kan mooy Cheikh Dieng Cheikh Dieng ce n'est pas yàlla damay damay sant yàlla sunu borom suturaal donc ma dellu ci oto bi ba ma jëlee prise de service le 13 mai wax naa ko léegi 2024 à ONAS damaa ñëw fekk directeur général ONAS amul oto ndax oto ba fa nekkoon directeur ba nga xam ne maa ko remplacé.

de DAF solution moo fi On un style directeur général comme directeur général il nañ amee oto comme ni ma ci amee droit amul une prévision budgétaire pour le budget 2024 pour nous mettre de l'ordre. Nous sommes suloo wax na ko léegi ku xam administration la moitié des véhicules yi daw ci

man ko na projet boobu dindal oto di directeur général le DAF jox ordre donc entreprise bi nga xam ni mooy doxal le projet PPP boobu muy projet partenariat public et privé la ñuy dox di xaalisu Sénégal ndax un franc bu projet boobu financé un franc boobu état du Sénégal daf ko koy remboursé projet boobu

Vous des auto pour le que général là c'est la cinquante unième voiture projet Bohani, contrairement à ce qu'a dit le journaliste Tibur, conférence de presse le projet Bohani, mi au sein de ONAS depuis 2021 décembre 2024 le projet Bohani. Le projet boo il fait un taux d'exécution de 90 daanaka ñetti weer ñeenti weer la dese pour ce projet jeex kooku est-ce que am na intérêt naan dafay corrompre un directeur général amul intérêt xanaa wax bu feebaree nopp nopp lu koy déggoo war a waaye boo ñëwee ñu dox la ay information approximative ngay wër di yàq der wax deru jullit yàq deru góor kooku ah dëgg yàlla man diital euh, na ci yenn façon journaliste yi nga xam ni am nañ ko am nañ ko Sénégal donc tout naturellement ma joxe ordre bi dem tourné ñu dindi oto bi sama gannaaw oto bi nga ko jëndee sama gannaaw ñu def ko sama tur ma ñibbi si tourné deux jours vérifier carte grise bi gis si carte bi daal daal nekk ci sama tur ma delloo oto bi delloo carte grise mi xaw ma nu ngeen doon defee fii ci ONAS mais dama ne woon bi may jël service ni tàppale jeex na ONAS kon bu dee da ngeen daa def oto oto yi ci turu nit ñi dindi leen ko commencé leen ko ci oto bii ngeen def ci sama tur ngeen dem dindi ko def ko ci turu ONAS Donc, dès lors oto bi ñu dellusiwaat ni ne oto pas mënuñu koy def parce que le protocole d'accord du gouvernement du Sénégal a projet bi a ni le matériel ci turu entreprise bi lay jusqu'à la fin du projet constater la fin de projet nous devons nous muter ci turu effectivement te muy na en plus ma il faut une autorisation de la commission de contrôle des véhicules de l'administration de la CCR. kon je ni def leen ko ci société bi nga est exécutée mooy le projet public bi ñu defaat du bi ci turu projet ci turu entreprise bi donc moo ko delloo ak carte grise bu nekk ci turu PPP le bi le 9 le 9 août exactement le, 9 juillet exactement le ministre bindoon nana wa waaw dégg naa ni dafa am benn oto boo xam ni dañ la koo may xawma projet moo ko bind ñu def ko ci surtout loolu normalu dama bëgg nga dindi ma tontu ko ni ko monsieur le ministre le 9 nga ma dindi carte grise oto bi mi ngi nii depuis le 5 fekk na def ko ci turu entreprise locale kon xaaruma yow nga nee woon noonu jub jubal jubal da nga ma cee fekk ba pare lii ndëngate boo xam ne entreprise boo ko def woon rectifier naa ko balaa ngay wax ak man waaye nit boo xam nit boo xam ni lañu def safaan la ciy wut ba ma bindee lettre yi daf cay defal ampliation premier ministre defal ci ampliation président de la république ma tontu ko boole ci carte grise lettre bi ne ko ba may bind fekk na le nekk na ci turu entreprise ba pare lettre boobu jottaliwu ko Ousmane Sonko ko Bassirou mu nañ xanaa xanaa foofu la jublu tàmbali ba pare muy dossier bo xamni c'était fermé depuis le 9 juillet mu mu mu bàyyi bañu ñu dàq au mois d'août mu dem fay al journaliste ñu ko waxal ci waxu auto xanaa de la manipulation loolu dama leen ci won ay l'air. yu leer kayit bu njëkk bi di ko am après en rouge mooy accord entre le gouvernement du Sénégal et la société l'entreprise d'exécuter exécuter le projet public Puis, buy ni entreprise boobu dafa war une du matériel roulant pour ONAS Ce n'est pas que des ko dañ que nekk accord de crédit un accord de partenariat entre le projet PPP et le gouvernement du Sénégal deuxième pays, nekk la liste de tout le matériel que nga avons.

bii lettre laa bindoon ministre gis ngeen dàq pour wan ko ni oto ba nekkoon na nekk na déjà au niveau de euh, carte grise bi nekk na au nom de l'entreprise ba pare nekkatul ci sama tur waaye ni tàmb ñu ko dina naan xam nga yi kii comme vraiment

mu bind ma lettre ni ONAS li fi xew mooy kuy dem à retraite dañuy jël njëg bu oyof ñu jaayee la ko oto ba nga yoroon man ko oto ONAS man moomu moom ginnaaw koo demoon te da nga ko yóbbuwoon te DG bi ma remplacé jotuloo ko woon a jaay kon delloo si oto bi parce que oto bi moomu oto ba tey boo demee fe ONAS fekk ko mu baax waaye wax wax ju sew Cheikh Dieng du ba wax ji sew ji tàmbalee jóge ci ministre bi ma faf gedd oto bi delloo ko société bind lettre ministre bi ko oto ba gedd naa ko delloo naa ko te delloo naa ba mu ko bind mi ngi ma au mu jë jëbbal ko Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mu téewaat lettre kon ñoom Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye jàpp ba léegi ni Cheikh Dieng lu mu bindoon ci lettre bi dañ koo may oto def oto bi ci turam ba pare nee naa ko delloo ko mu bañ loolu la bàyyi ci xel Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye li may wax ni dafa am solo ndax dinaa ci jël parce que les conditions subjectives yi nga xam ni ci la Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko sukkandiku ba bi billaay yeneen tuuma ñu daal demee dàq ci sama place ba ma nekk